فرلات وزيور جميع فيجي دقالو مزيا فرلات وزيور جميع فيجي دقالو مزيا فرلات وزيور جميع فيجي دقالو مزيا فرلات وزيور جميع فيجي دقالو مزيا فرلات وزيور جميع فيجي دقالو مزيا فرلات وزيور ko yaay ma farolaate wante ngoor jangi fiije indokalume sa yaay ma farolaate wante ngoor jangi fiije indokalume sa yaay ma farolaate wante ngoor jangi fiije fayaye boy faji fijo vaja min wen kim kaatolantege fijo vaja min wen kim kaatolantege fayaye boy faji fijo vaja min wen kim kaatolantege fayaye boy faji fijo vaja asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax baax tey nag ñu ngi leen di nuyoo fii ci Gambia fii ci Amdalaay tey jii di samedi le 13 février 2021. Leewtoo TV mobilisé équipe bu am doole ñëw fii ci am Amdalaay fa seene leen a toppal lamb ji fi am muy mbapat di làmb simple nee naa leen tey di ngeen gis Gambia naka la ñuy dundee làmb ku nekk xam na ne làmb gëj na am Sénégal looloo waral Leewtoo TV mobiliser équipe bu am doole ñëw fii ci Gambie ñëw fii ci am de lay fas leen leen a won lépp luy làmb ambiance xar fa xur fa wante danañ leen war mbëri ni ñuy ni wante tamit daañu waxtaan ak amateurs yi ci naka la dundee làmb loolu léegi lay doon. fii ci Leewtoo TV wante fii ci biir Gambia jaajëf sama gaay yi

maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Grand Mbaye Babacar siyaar nga ne xeeru Faas. loo gën a la wala nga ne xeeru Faas. mais booy lu la a compétir rek. man doomu Gambi laa. waaw pour jël si 1 million bi. waaw da jël si làmb ji. incha allah. yaa ngi soog a wàcc wala yaa ngi ngaa dugg ci terrain bi. non demoon naa simal nag dama faa ñàkk huitième de waaw. moo gisee làmb Gàmbi. waaw làmb Gàmbi neex na torop wax dëgg yàlla neex na torop bu baax a baax waaw. jaajëf ci kanam. jaajëf grand Mbaye Babacar Sy. maa ngi lay ziar. waaw doo la ziar bu wér. foro foro. fara waaw. fara foo jógee. bari ñi bari ñi day xasan. waaw làmb jaral nañu loolu quoi. lan moo la andi fii. fii jël si rek drapeau bi daa bëgg a jël waaw incha allah. mais gis naa ne lamb ji bëri na ay mbër dina yomb. waaw bëri na ay champion de mais xam am nañu si yaakaar na dinañ ko yóbbu quoi bu soobee yàlla. mais lan nga amagum ci lamb ji. Ah? ma ne lan nga jëlagum ren. ren gi maa ngi door a tijji nii waaw incha allah. noo gisee lamb Gambie. waaw ah, nee na trop lamb Gambie moom dafa neex trop trop. bilaahi. jaajëf ah, amiin amiin